ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bi di xalaat TV ñu ngi leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. tey nag dañuy wax ci sujet boo xam ni yaakaar naa bu amee ci benn ci mbir yi ëpp yu ñu interpellé ba si weesu ci la bokk muy dundugu cher gi amul sénégalais bu ko yëgul te malheureusement dafay gën a jéggi dayo ndax li yéeme mooy prix yi sénégalais yi ci boppam mënatuñ ko contrôler maanaam tey xalaat TV mën na joxe exemple ne produit nangam jógee na ci 5000 francs dem ba 8000 francs ndekete boo demee feneen yéeg na sax ba dix mille francs maanaam marché consommation bi dafa toll ci benn anarchie boo xam ni prix yi nu mu neexee gars yi lañ koy fixé et malheureusement sénégalais bi rawati rawatina yi nga xam ne ay revenu am demeewul noonu muy subir les conséquences. xam ngay jamono yu weesu dañ doon wax naan Sénégal ñàkk bi toll na foo xam ni famille yu bari ndékki ak añ dong la ñuy assuré seen njaboot guddi gi ku nekk xam noo def mais ak situation bi ñu nekk tey bu arrêté wul. kër yu ci bare bari benn repas dong la ñu mën assurer seen njaboot par jour ndax la nga daan yor di ci génne ndekki añ reer léegi mënatoo ci togg añ bu baax li la sénégalais di dundu jamono ji boole ci nak di muñ légui lan mo waral li newul ndogalu yalla newul ni sénégalais dañu togg rek di xaar xewlu suñu borom sénégalais yaangi liggéey bala nga koy xam nga juk fajar gis jeune yek suñu yaay ak papa yi diko ñakante ci arabus sénégalais yaangi daan seen doole dafa fekk ni la ngay liggéey di daw di ko dàkkante lépp ci dund la yam ndax kenn bëggul xëy gis sa njaboot di xiif mbaa di ko wuti feneen lu mënti xew nag dafa am lu ko waral te situation yi ni mel maanaam dund gu cher gi ñi war a wax pour sénégalais yi dégg leen comprendre phénomène li ko jur fan la tàmbalee sénégalais yi duñ leen dégg parce que ay corrompu lañ mooy genre Momar ndaw yi nga xamante nii dañ doon bàkkoo ni ñooy protéger consommateurs yi alors que seen poche moo leen ñoroon dañ doon mbubboo sénégalais yi pour am tur après état wolen a neexal un poste bu ndaw ñu nopi wi wala bok ñen ñi ñu leen di vous ay expert bu ñuy wax ci ñu ci bari comprendre ay chinois ci seen nopp par exemple actuellement li xew ci réew mi bo ci économie mën nañ ko li inflation mais suñu yaay yi nga xamanteni ni dañuy marché marché yi inflation mo am Sénégal duñ parce que xamuñ li ngay wax moy lan li gëna simple moy nga ni leen Sénégal dafa tollu fo xamanteni ni mën-mën gi demeewul nonu dafa tagga tembé rax ci doli li ñuy may ñuy dundu lek bu sour ngir am katan taxaw ngir dem daani doole loolu lépp njëg mi dafa yokku ba jéggi dayo légui ci njëg yoy nonu ñun la taxaw tay manam évolution bu doyo doyo war bi prix yi jël digënté bi ñuy folimètre wa dans 2012 ak 2021 bi nga xamni tay la Sénégalais gën sonu bu ñu comparé prix ba nopi nak dooro ñew ci naka lañu yeggé yeggee ci bile situation sénégalais xam les véritables causes. dañuy taxaw d'abord ci li ñuy woyé denrées de première nécessité yi manam produit yi nga xam ni mënul ñak ci dundu doomi aadama te ñu némé ko ci yok bu jégg dayo diggante 2012 bi ñuy folli Maître Wade ndax dund gi dafa cheroon ak yenen ak yenen ak 2021 nguuru Macky Sall bi nga xam ni dafa jëloon yokkute prix yoyu nonu jamono Maître wad

dafa double ba tegal ba tey ci produit sénégalais yi di gën a consommé suukar bi ci la 50 kg bi mi ngi 27 500 en 2012 tey mi ngi 32 000 1 kilo ñu la ko doon 550 550 2012 tey kilo sucre dem na ba 800 francs mais produit boobu noonu bu fekkoon ni sax dafa disponible ñu ne waaw mais sénégalais yi mënu duñ ko teg bët dafa rare. boolewuñ ci consort ndax balaa ngaa tal lekk yàpp dafay fekk nga am njëgu ceeb ak diwlin ba noppi ndawlu xar bi rek boo ko jëlee jóge na ci 3500 dem ba 5000 jàpp 6000 francs bu dee ne nag bi la kilo bi doon jar 2800 dem na ba 3800 jàpp 4000 maanaam des na tuuti gis kuy lekk ndawal moo xam dibi wala tufe biir Sénégal luxe lay doon dañ lay ñee est-ce que lii jàmm la cim réew ci dëkk boo xamante nii lépp la ko suñu borom may àll gu ne yàmbalang ngir sàmm suuf su nangu ngir bay lo fi ji suñu borom dal di koy nangu bo demee walo ndox ma ngay wala ngaan ñu ne dëkk bobu tay dañu am problème dundu dund li da fay prouver échec suñu njit kon ci tënk li moy produit yi nga xamanteni ni mënul ñak ci dundu bépp doomi sénégal te bo ci lal njëg mi jéggi dayo donc bo di ab gorlu wala ab yaay boy buy daw ngir bëggu ñu xif li nga doon dépenser tey double bi ngay génnee waaye bu fekkoon ni sax la nga daan am ci koppar dafa yokku ñu ne waaw mais tey la dëkk bi gën a métti diggante 2012 jàpp 2021 sénégalais sax seen pouvoir d'achat maanaam seen mën-mën ci wàllum koom dafa wàññeeku lu baree bari ñu tegal leen ci nag daal di yokk dund gi kon képp kuy daan sa doole Sénégal te fayekoo ay millions chaque mois jàppale ni loo liggéey ci dund la yem ay tabax kër sax dootul nekk sa priorité ndax mënoo ko. lenn mooy nekk solution pour tabax kër Sénégal mooy nga dem lebi banque boo demee foofu tamit ñu rayaat la ba ngay bëgg a dee ndax bu la joxee benn exemple nga leb ci misaal 14 millions war koo rembourser sur 15 ans fukki ak juróom di nga leen fay ay intérêt yu ëpp 10 millions yu bokk la 14 millions yi nga leen leb maanaam boo leboon banque 14 millions pour tabax kër nga war koo fay ci diir bu gudd par exemple 10 ans jàpp 15 ans yow lu ëpp 20 millions nga leen di rembourser lii arnaque la. sàcc la waaye sénégalais yu bari ñu ngi koy nangu parce que amuñu bu ñu ko deful duñu mën a dajale xaalis wala bu fekkee ni da nga ni da ngay dajale fukki at jàpp fukki at ak juróom pour tabax kër doo dem ci banque diggante 2021 bi ngay tàmbalee dajale ak 2031 bi nga namm tabax sa kër terrain bi doon jar million millions tay mën na dem ba 20 millions terrain ndongo matériaux de construction yi war a tabax terrain bi moo xam ciment fer ak yu ni mel dafay yokk également kon gis ngeen fitna gi sénégalais yi nekkee dañu nekk ci li tubab di woyé entre le marteau et l'enclume sëggi dee comme ni ko dem si yalla Sidi Lamine doon waxé yalla na fof ci kawam jëlal tay njëgu ciment bi 2012 ton bi mi ngi tollu ci 55000 francs moment bi ñi def vidéo bi tonu ciment dem na ba 70000 ci dëkk bo xamanteni nii nee nañ am na cimenteries ñetti usine yu produire ciment muy sokosim Ciment du Sahel ak Dangote

You doon jar 4000 teg nañ ci 2000 francs muy 6000 léegi ak situation bi kañ la sénégalais bi dëkk ci daw dépenses, ki nga li pour sóoraale la wala salarié fonctionnaire bi nga xam balaa bilan ba sénégalais boobu noonu kañ lay tabax ci location location ni Manam dafa mel ni créer volontairement benn situation pour appauvrir sénégalais bi ñàkkuloo ko sonnuloo ko toroxal ko ba mu ndax état xamna na fan la mën jaar ba li lepp dotu am ki fi nekk te yóbbee sénégalais li ñu dund lii lépp nee naa leen gu cher gi la defone campagne en 2012 te lim doon wax du ko maîtriser bu baax baax ndax premier ministre la nekku no aussi président assemblée nationale xam ni réew di fonctionner.

pour que alal ji mën dem ci askan wi. donc ñi nga xamni ñi ngi laaj lan mo tax dund gi cher ba sénégalais ci fitna ku doy war Macky Sall wax na liko waral ak naka lañ ko mën safara légui lan mo tax defu ko ba légui dafa ñew def li gëna yees nguru wad ndax dafa ni won, li tax dund gi cher moy yene ko déggandoo moy suñu gouvernement yi lim ñuy coûter ci xaaliss dafa bari lool donc mom bu falo dafa digge won ni réew mi dootul wessu 25 ministres ñaar fukki ministres ak juroom ndax Abdoulaye Wade amoon na ci lu tollu ci 38 ministres fanweeri jëwriñ yu tegal juróom-ñett jamono jooju Macky Sall jàpp ni loolu dafa bari lool ci réew mu ndaw comme Sénégal rax ci yi mu ne institution yi nga xamante ni amul benn njariñ yu ci mel ni Sénat bi nga xam ne 8 milliards ñuy diggee at bu yàlla sàkk te Abdoulaye Wade tegoon ko fi mu ne da koy dindi mais ba mu faloo lan la Macky Sall def naam supprimé na li nga xam ne mooy Sénat mais dafa créé waat yeneen institution yu gën a mag gën a mën a yàq xaalis te amuñu benn njariñ pour dugal fa ay partenaire politique am maanaam pàccoo réew mi ku ne jël sa wàll fàtte nañ askan wi déjà ñoo ngi séddoo conseil économique social et environnemental la njëkk a dekkil en septembre 2012 quelques mois gannaaw ba mu faloo teg fa Aminata Tall mu jox ko budget wu 7 milliards par an at bu yàlla sàkk tey Idrissa Seck moo fa nekk mu daal di yokk budget bi yóbbu ko ba 8 milliards jox ko salaire u 9 millions bokkul ak logement am oto yi ñu koy jébbal carburant avec ñukoy garder bolé membres juroom ñetti fukki membres yi ci ku ci millions ak indemnité 1 million yi nga xamanteni ni dañ leen koy jibal sa ñu Sénégal mu institution bu a ndariñ muy haut conseil des collectivités territoriales parti socialiste ñoko mom. ci bi ku ba amin Aminata ngi Ndiaye daal di koy remplacer 2021 bii rek seen budget mi ngi toll ci 9 milliards Aminata Mbengue Ndiaye bi ko jiite salaire ru 9 millions lay am sans compter oto yeeg yi logement yi ak neexal yi membres yi nga xam ne nag ñoo bokk ci boobu kuréel toll ci 150 membres téeméer ak juróom fukki doomi aadama ku ci nekk conseiller simple di nga am salaire ru 1 million 500 jàpp 2 millions boo di haut conseiller nag ñu tegal la ci benn 4x4 buy jar 27 millions. ministre yi Macky Sall waxoon ni daf ko jëlee ci 38 fanweer juróom-ñett yi Abdoulaye Wade bàyyi woon fii mu ne moom daf koy wàññi ba ñaar fukki ministre ak juróom 25 ministre lu mu bari bari tey moom Macky Sall bi waxoon loolu noonu mi ngi 39 ministre fanweeri ministre ak juróom-ñeent romb na maître Wade di dem boolewuñ ci nag ministre conseil yi nga xamante nii romb nañ fanweer maanaam bu ñu boolee ministre yi Macky Sall tabb titulaire rek ministre conseil yi li leen ñu mat téeméer bariwul lii mooy yóbbu xaalisu Sénégal te bu ñu ci fal leen dong mu neex mais dañ ci bolé di sacc xaalisu réew mi moo xam ministère, yi direction yi HCCT ak conseil économique social et environnemental xam nga fu Idrissa Seck jité mom jamm du fam am jité ko ñu lepp institution yi leen limal ba lañ fa nekké détournement d'objectif ak nomination yama neex li mo am Sénégal te askan bi nekk ci souf ñom ñoko yegg yëg. léegi charge yi yëpp nag fan la yóbbu Sénégal bi Abdoulaye Wade di fi jógee mi ngi fi bàyyi boru 3076 milliards jàpp leen ñetti junni milliards yu tegal juróom-ñaar fukk ak juróom-benn lii la fi maître Wade bàyyi woon ci bor gannaaw fukki ak ñaar yi mu def ci bopp réew mi. Macky Sall diggante 2012 bi mu jël réew mi ak 2020 bi ñu génn huit ans juróom-ñetteet dong jëlee na ko ci 3076 milliards yi fi maître Wade bàyyi woon bor yi yóbbu ko ba 9364 milliards. juróom-ñeenti junni milliards yu toftal ñetti téeméer ak juróom benn fukk ñeent maanaam dafa triplé li fi maître Wade bàyyi woon ciy bor ci diir bu gàtt a gàtt te li sénégalais mënul comprendre mooy nguur Wade la suñuy bor gënoon néew mais boobu la réew mi gënoon tane kii moom dugal ñu ci bor yoo xamante ni ay génération ki génération ñoo koy fay ñun ñii suñuy doom ak suñu sët ñooy continuer di fay bor boobu noonu mais tey la sénégalais gën a sonn ci biir réewam kenn gisul xaalis lekkuñu ba suur nanuñ mandé li sabab li nak nyom ñom dañuy leb xaliss ba nopi pa pour delloo ko askan wi ba ku nekk gis sa bop ci domaine bi nga yëngu mais dañuy dem lebi ci tour sénégalais yi pour ñom seeni banexu bakkan wa PS jël li ak seen gangor wa AFP jël wa waa réew mi yéen mom lii moom président bak ñi mo andal wa APR di gundandat jind avion bu bes parce que baadoolu bu dooru jot ci nguur la faamu banexu profito ñom Mamour Diallo simple fonctionnaire ak Aliou Dembourou Sow di dawal ay auto yu jar 100 millions di ko pukkarewoo pour wane ni ñom tek nañ manam di ñaawal askan wi. légui nak xaalis bobu nonu ñu dem lebi di ko noosee di ci ciakaay di ci wut di dabu lañu wésu gannaaw Sénégal du ko mëna a fay parce que investiruñ ko suñu économie ngir muy jur Manam financer jeune, ñu liggéey di rembourser duñ leen ko may déedéet mais dañ leen koy lebal ci ay taux yu ndaw ndaw ndax lolu moy tax ñu gëna am jom su ko defee petite et moyenne entreprise yi di juddu këru liggéeyukaay yu ndaw yooyu ak yu diggu dóom yi ñooy dem ba màgg ñooy dem ba doon ay industrie yu mag ñoom am économie bu am doole boo xamante nii ay doomi réew mi ñoo ciy teg seen loxo ku ne di fay say impôt xaalisu état di gën a yokku ñu ciy fay suñuy bor waa bitim réew te kenn du ci loru bor lii la jëriñ ci réew ñii nag naka la ñuy def dañuy dem lebi benn groupe minorité bu ndaw Nous représentons représenté wuñu de population Nous avons jël xaalis di pour faire yooyee bor nous avons nga xam ñu ngi utiliser di état di def entreprise ou importateur yi nga xamante ñuy fournir askan produit consommer taxes produit boo doon fay état 100 millions légui 200 millions ngay fay. ñu def ko également ak société yi nga xamni ñoo nekk ci biir réew mi di leen fayloo ay impôts yu metti légui kum ko kuru këru liggéeyukaay yooyu nonu seeni borom ñu ko tej parce que ci liñu ñuy dañuy nangu charge yi nga état mi koy tek seen kaw ba nopi nak dal di kay fayu ci yow mi di sétane man mi di wax ak yeen ak benen doomi Sénégal manam dañuy yokk jogu produit yi pour ñoom itam seen activité baña daanu ndax état mi ngi leen di tek lu doy war lii moo waral dund gi cher. kon bu ngeen gisee tekki tekkaaralu nguur gi depuis lors moo xam président bi ak ministre bi ñu dénk wàllum jënd ak njaay lii moo ko waral. Assome Diatta moom bañ na ko sax ba taluñu mi ngi Kër Massar di campagne parce que dafa bëgg a nekk seen maire kon ñii faalewuñu nu ñu nguuroo la ñuy wër donte moom nag ministre bi amul benn pouvoir pour décider ci dund gi dañ ko jiital rek di ko jox ay muy exécuté mais bo mënul wax nga la waay amal suñu kersa te dem làqatu ndank mais pas du wër di campagne ndax da fay melni mbir yi safu la ñoom xam ni ñoy responsable yi mais wuñu jakarlok sénégalais yi wax leen dëgg de toute façon Macky Sall mom du wax ko du dëgg moy président bi dàq wax lu du dëgg ci aduna bi lepp lu mu wax ay nar la déglu ngeen kaddu barki dembam yi njëg yi gouvernement bi la ndax gouvernement bi mooy def ay taxes. yokk taxes yi parce que li mu soxla si doxalin li mu soxla si ay tukki li mu soxla si jëndi avion li mu soxla si ubbi ay ambassade ci am ay ministère dafa diis diisaay boo xam ne pour mu mën ko def faaw mu teg lu diis ci njëg yi donc loolu la ñu njëkk a dindi wàññi ñu nguur gi doxee diisaay bi pour que alal ji mën a dem ci askan wi. ak ba mu faloo ni mu def. baadoola bu jot ci nguur la boole ci nag ñàkk yërmande Macky Sall dafa soxor deretu gor dawut ci yaramam parce que jikoy jam la yor waxon nañ ko fi moy président bi gënon jek ngir défar Sénégal ndax juddowul ci famille bo xamanteni dañu am lepp luy metti te sénégalais war ko dundu Macky Sall daf ci jaar Macky Sall demul na sax ba bayam am lu lu ko fay jangam boole ci diko yor ci biir kër gi mom ak Aliou Sall dafa muju Kaolack ci sen mbokk mo taxone Macky Sall defone ay études secondaires ci lycée bu Kaolack école publique bu Sénégal moko ci xaalisu senegal lañ ko jàngalee bépp liggéey bu mu sàmm ci xaalisu senegal lañ ko fayee moo xam ba muy nekk agent Petrosen ministre maire président assemblée nationale ba tey bi muy nekk président de la république Macky Sall senegal mu ko mos yor bokkul ak yow mii di seetaan nga xam ni mosoo lekk dërëmu état loo am yaa ko liggéeyal sa bopp. kon kii moom moo jekkoon ngir defar réew mi ndax senegal dafa wàccoog moom defal ko bu nekk moom soxlawul sax di génn palais pour xam ni sénégalais di ndax def ci jaar ba noppi wër senegal avant mu jot ci bopp réew mi kii tey moo dem ba jot ci nguur soppaliku doon benn démon benn monstre bu soxor soxor doon fitna ci sénégalais yi dëkk ci di leen toroxal di leen gën a appauvrir ci population boo xamante nii ñoo dàq muñ ci na bi sénégalais li muy nangu dëkku lépp di ko maslaa naan yàlla baax na amul benn askan bu koy nangu réew mu neex a defar ndax askan wi bugguñ fitna bu ngeen seetloo depuis bu dund bi yokkoo déggoo kenn ku jóg ñoo ngi toog di muñ dañuy wax daal di bàyyi léegi nag dafa doy ay manifestation war nañ ko amal fépp ci bu buñ koy dëgmal daañ ci communiquer soit daf ñuy delloo lu ñu moom la muy lebi di ko sàcc ak nguuram wala askan wi jëf jëflante ak ñoom ndax du ñu nangu ñoom ñu nekk seeni confort di pàccoo xaalis réew mi dem sax ba du ñu ñaawal di exposer seeni bien xaalis boo xamante nii daf lay leer ni dañ ko sàcc ba noppi nag bëgguñu dundaloo safara ci kaw suuf te deewaguñu lii lañ ne duñ ko nangu te daañu jàmbaaroog ñoom parce que lii mooy saafara mbir yi xeex ki Sall ci jaamu yàlla la bokk ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje incha allah beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf.